monsieur le la dama bëgg nga ñëw nga wax ñu li nga xamante ni mooy chancement nom bi nga xam ne moom nga ñu indil te nga wax ni banque mondiale yow yaa ñu ko wax te binduñu ko si rapport yaa wax ne nga ni banque mondiale moo am ay yoo xam ne dañ ko attendre ak ñoom tant que changement nom bi amul duñ ko mën a appliquer yow yaa ko wax mais loogi loolu bu fekkente yow ñu koo wax ñu ñu ñun ci commission technique nga xam ne télévision ñëwul kenn ñëwul ma xamal ni ñun liggéeyul banque mondiale ñun Sénégal la ñuy liggéeyal te lépp loo ñu jox war nañ koo xam mais yoon def na la nga waxoon nga waxaat ko mais nag du caayinke dangay ñëw fii nga bëgg a tuur nit ñi lënd ma leneen ak leneen pour loolu loolu duñu ko def te duñu ko ñu wax ministre bi li ñu ko laaj ci loo ay changement la yu ñu ñu indil muy ab tur boo xam war a soppi jële ko si lii indi ko si feneen ñun yoon def na ñu laaj ko loolu noonu lan la si jublu ak bu ñu ko defee lan la ñu indil pour économiquement laaj nañ ko mais amul lenn loo xamante ni tey ay bànqaas yu wér loo yoo xam ne mën nañoo sukkandiku si loolu pour mën a wate si li nga xam moom ñun man de duma ko wate euh, bi monsieur le ministre dama jàpp ni fii indiwul la fi pour ngay wax di jàngal nit ay leçon yaakaar naa ni ñu la ëpp xam-xam nekk te dañoo falte yow dañ laa nommé te bu mercredi jotee boo amul sens mën naa bokk si mën bokk si ñuy wàcce dañu ñun cinquant ak cinq kon dama bëgg nga xam ni man mi wax a yow musuma ñëw si bureau ki nga toogal musuma ñëw bureau keneen musuma ñëw bureau keneen musuma ñëw bureau aw ma si soxla man kenn laa amuy see si Ahmadou